Ama Baldé ak Modou Lo ba jàpp nañu ko. Mhm. waaw mu mel ni li ma wax rek tama combat yëpp gis nañ Ama Baldé muy nit koo xam ne tama xarit la tama wóllëre la bàyyam doonoon tama wóllëre ma ni gis naa fii ñu toog fii ba deux mille vingt cinq làmb ji nga xamante ni moo wér làmb ji nga xamante ni moo taxaw Cheikh Moustapha Fall Kéemaan wax ko Ama Baldé dana war ci kaw Modou Lo ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala molloo fa ko xale bi defoon jekk ko ko ci gàllaaj sañ ko ko ci bitéel ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ama ma nga fa ama samp na te dama ni li mu defoon ëmmat seen ci làmb ba bakkanam xajoon ci na moytu gone gi moom Modou Lo dama ni bu moytuwut bu jógee ci ñaari combat Pikine yi diggante Ama Baldé ak booy Niang mooy bàyyi làmbam ci kàttanu yàlla ndamu Ama daanoo gi nga xamante ni mooy Modou Lo sama loxo laa ko teg ci kàttanu koroog buñ ca yeggee ci làmb ji nga xamante ni jàpp nañ ko xanaa mu bañ a bëri waaye bu bëggee bëri bañ bëri moom danañ ko sént ci suuf ci kàttanu yàlla tabar Ama Ama Baldé nouveau roi roi roi des bu fekkee bëri nag moom ci kat ndax gone jekk na ko ci mystique jekk ko ci doole jég ko ci xarfa fuufa ci gàllaaj gu ñuul kuk ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala bu bëreeg Ama Balde moom Modou Lo fitir roi des arènes mooy Ama Balde ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ku baax ki foolooy sunu kàddu te ñun ñoo la ko wax te da nga fi del siwaat jërëjëf loolu leer na euh, sëriñ bi danga nga am bayre waa bayre njaay bu sab-sab bayre hmm. place bu sab-sab képp koo xam ne bëgg nga bayre ci kàttanu yàlla tabaaraka wa boo ñu songee soobu ci ñun incha allah ñu defal la bayre boo xamante ni day ànd ak kaaraange ndax bari na ñoo xamante ni teenu ñàkk bayre ak teenu faatu ñàkk kaaraange ñun kaaraange lañu la njëkk a defal ba pare toog laa tang bayre boo xamante ni ku bëgg nikkun ku bañ nikkun boo wéetee ñu di la tudd boo demee ñu di la tudd foo nekk ñu te tudd ko ànd ak jàmm looy jaay mu jar ci kattanu teex Moussa borom bayre bu saf-saf ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala bayre umul Moussa bayre Souleymane bayre tubaab lépp lu waay bëgg ci bayre ci loo yëngu incha allah boo ñu seetee ñu jox la bayre bu saf saf ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala. internet yi de man maay seen échantillon. Hmm, jeex na kon yow bala ngaa dem yóbbaale ko yow boo ñëwaatee. ndax nettali bañ na dem si yàlla ta. ci kattanu yàlla tabaaraka wa taala ndax ñoom ñu seetaanee dañ lay woo téléphone. ndax loo gis ndax sëñ bi aay na. incha rabbi ci kattan kon jeex na kon yow yaa ko yóbbaale ñu la woowee nga wax ko ba xam gis nga ko mu déet ci kattanu yàlla tabaaraka waaw mu mel ni ñoo ngi nuyoo rek di ñaan suñu borom def ci at mii def ci jàmm ndax at mii ñoo ngi ñaan kenn ku ne boo nee waajur na nga saraxe ndax dafa nara tàng ci ay dee yomb ak ci li nga xamante ni maanaam mooy ay faatu yu gaaw a gaaw a képp ko xam waajur nga na nga saraxe juróom-ñaari mètre percal nga teg ci kilo yàpp nag wala bu xar incha teg ci peeru cerax ci kattanu yàlla tabaaraka wa kenn ku ne boo ko mënee na nga taraxel sa njaboot kenn ku ne peeru dàll jël galaas ñaar xooj ko tas ko sa buntu kër tasaare ko fa ñaan sunu borom at mii ñu dugg ci tam gi sunu borom def ci jàmm ci kàttanu yàlla tabaaraka wa taala ndax at mii ku jógut sa njaboot defoo ci sarax defoo ci ay ñaan xale dana génn ñu jekki-jekki woo la ni la jam nañ ko fee wala tëj nañ ko fee wala bokk na ci yi faatu na comme ni muy xewee nii ndax jinne yi dañoo taxaw war a jël seen bopp ci lu bari ci réew mi bu leen ko nit ñu joxul ci kàttanu yàlla tabaaraka wa